dama ne woon du ko boole mee naa ko boole. waaw boole ko ma dégg. gis nga xale yu jigéen yooyu ñu mandé yu ñu mandé noonu. mooy doom bi. volet volet bi. waaw billaay Pawlish da koy jaay. ah billaay day jaay volet. billaay wallaay taalaay. man la koy da koy jaay. parce que yow gisoo fan yii yëpp li mu wax boole si volet fekk si da koy publicité day publicité ak de Gàmbi lay dem billaay wallaay taalaay. xool sam rek dimanche mi ngi Gambie di wuti volet way pour ñu leer mi ngi jaay volé billahi wallahi day jaay volé fa la koy jaay fi ci moy jaay xale jigen ni volé yow bi nga démé fekk fa ay jigen gisuma ko de hmm. waaw parce que da nga day na billahi mais ni ni ni so soo làqatoo ni ni nii nii hmm. nga dem saa nga woo fa ay jigen nga fa fekk ñu ran kërëm volé lay jaay parce que yow ben xalé bu jigen bo xamna ne dafa ñew ci yéne la paralyse da ko jaay volé waaw kan billahi day jaay volé sama xarit yu bari da leen jaay volé volé bi ñaata lay jaay non man bëgguma koo xam ne mais day jaay volet. xale yu jigéen yooyu waxul lañ prix bi ñaata. billaay day jaay volet xoolal chaque samedi ak dimanche mi ngi gàmmi di jaay volet. billaahi léegi coytuwa Pawlish tamit ba xam volet bi fu koy jëlee soxla ma ko Gàmbi Gàmbi lay dem chaque samedi dimanche mi ngi jaay volet koy publicité chaque jour mi ngi koy publicité chaque jour mi ngi mi ngi mi ngi communiqué si volet chaque jour chaque jour mi ngi communiqué si volet léegi nag su communiqué si volet ah nit ñi dañ koy wone ko ñoo def ba xam ko mu ne da nga bëgg a ma mosal la ko am na xale yu jigéen ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi Dakar xamuñu volet Pawlish moo ne Dakar de Pawlish moo yàq jeune bi jeune yi jeune yëpp Sénégal yëpp Dakar yëpp Pawlish moo leen kii volé. moo leen jaay volé te Gàmbi la koy wutee. d'accord Mbaye li ngay wax nii. dama ne woon du ma ko boole mais billaay wallaay tallaay damaa mer ci loolu. billaay wallaay taalaay. ñoo amee ci jaay bi muy jaay volet bi wala da ngaa. Pawlish humilier bi lay humilier non non xale la mën naa dem liggéey mais lan moo tax liggéeyul di jaay ay vole ah man loo xamante ne am nga ci preuve moo tax xëy na wax ko. loo xamante ne état da koy tere. nguur da koy tere police li nguur di tere lépp lay def. li nguur di tere lépp lay def. à part bi lan lay def leen. police barke alxuraan nga police li di def. li nguur di lépp lépp lépp police da koy def. ah jarul nag mbay tamit nag. jarul jooy ba pare moom mooy bëgg a toroxal. daf laa dëkk di toroxal nag wax dëgg fa yàlla. taxawal. Pawlish di jaay lu nguur di tere di soxla booy yi. di dem ba Gambie di di jël fële man ma teg sama bët waa Gambie ñu wax ma ko. noppil wax dëgg fa yàlla Pawlish yàgg na di toroxal ci làmb ji. non du toroxal de toroxu ma tey laa ko nar a rey. billaahi tey laa ko nar a rey. tey laa ko nar a rey billaahi wallaahi taalaa ay mbokkam nañ ko téye parce que yaayam mbuur la dëkk sama yaay mbuur la dëkk bëgguma koo toroxal mais Pawlish dama bañ a moytu na moo tey su ñëwee si combat bi tey su ñëwee fi may joxee drapeau bi billaahi dama koy rey billaahi dama koy rey li tax lii si saa mosuma koo def mais dama koy def tey pour gë dëgëral sama xol nañ jàll si leneen bëggatuma déglu Pawlish. bëggatuma koo dégg bëggatuma wax balaa ngaa tëj. non bëggatuma ko dégg bëggatuma ko dégg day jaay volé bëggatuma ko dégg bëggatuma ko dégg bëggatuma koo dégg ay waxu bëggatuma koo dégg waa baax na comme ñun deli woon nañ Pawlish xam naa ne bu disponible fan yi ñun am ñoom disponible nañ chaque jour boo ñu woowee rek dinañ ñëw jël la nga tontu ci li mbay wax ndax nee na dangay jaay volet jigéen yi nga xamante ni xam nañu ko yow ko xamal ba moom sax tuur na ci ay xéewal nee na li tax ngay jaay li nga xamante ni nguur gi def koy tere ñun nag disponible nañ boo ñu woowee dinañ ñëw ba sa kër nga indi ci loolu ay leeral euh, kii mbay jarul ay joor xam naa ne sa xol tooy na lool waaye tamit naanal ci ndox mu sedd mi rek yow tamit ñu jàll ci leen ci beneen sujet waaw naanal ci ndox mi dolli ah déet bul tuuru bul tuuru bul bul kii da tooyal photo yi toj nag tàngal na sa yaram xam naa ne tey moom fee fee dina tàng man moom xam naa ne di moom bu may wàcc fii damay dem changé wu rek daal di dem foofu seetaani drapeau bi niñ ko koy joxee Pawlish ak yooyu mbay